yonent bi sallallahu alayhi wa nee na képp ku julli suba mi ngi ci kaaraangeeg yàlla muslim moo ko solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ni képp ku julli gee ànd ko ak mbooloo ma daa mel ne genn wàll gudd gi yépp danga ko taxaw di ko julli waaye képp ku julli suba ànd ko ak mbooloo ma daa mel ne guddi gi yépp danga ko taxaw di ko julli muslim moo ko solo